77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontante ak euh, mbégte teewaat fii ci le point de la rédaction muy jotaay euh, ñu koy amal di ci waxtaane lépp loo xam ne si ni actualité la rawatina fait divers may am mbégte également euh, di ci ànd ak Moustapha Mbaye tous les jours Moustapha Mbaye noo def maa ngi fi Cheikh Mahfous maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy faral di ànd ak ñun si sunu jotaay bi ñuy wax le point de la rédaction Moustapha naka koor gi dafa mel ni li des bëreetul de waaw li moom 10 dugg nañ ci 10 jours mujj dugg nañ ci Mm-hmm. xam naa moom euh, dix maximum dafatul ay ay un jour dix jours donc ah, bëreetul quoi yëgatuñ koor gi ñu ngi ci non non yëgatuñ euh, préparé korité ak ñaan yàlla rek li si des yàlla nañu ko yàlla dangul rek ñu jàmm ci yàlla lépp lu ñu mën aca mi ngi noonu ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi mm-hmm. tàmbalee ko ak Macky Sall euh, muy attitude bu mu amee jamono ji ñu koy gis daanaka bu jëlee discours rek ni muy waxee kenn du ko rafetlu mu mel que ni dafay amee benn discours bu xaw a dëgër yi moo xam ne buñ ko vacciné wul bu ko sénégalais nangul vacciné mu maye ko euh, ñëwaat na ci li nga xamante ni moom mooy autoroute à péage bi nee na képp koo xamante ni mënoo jaar ci péage bi nga jël ko euh, ñenn ci waay euh, mu daal génn daal koy tontu wax que ni autoroute bi dafa arnaque la te donc Macky Sall waroon na mën a amee beneen taxawaay boo xam ne si ni budul bi nga xamante ni am na ko Euh, ci Sénégalais yi ci jafe-jafe yi ñu am euh, bu ñu xamee ne que askan bu Sénégal daanaka pauvreté bi daf leen na sonal donc buñ ci indee beneen péage boo xam ne si ni dafa cher tamit dafa ay jafe ba tax na. ci attitude boobu la ñu bëgg a ñëw muy Macky Sall discours yi nga xamante ni daf koy amee donc euh, jàngat ko xool naka lañ koy jàngate man ak Moustapha Moustapha mm-hmm. comme ni ma ko waxee rek ban lecture nga am tey ci attitude bi nga xam ne si ni Macky Sall am na ko daanaka bu defee discours rek ñu bëri dañ koy dañ naan accam waaw ça devient récurrent mi ngi mi ngi mais bu fekkente ne yàgg nga suivre euh, président Macky Sall ay sortem yu bëri di nga xam ne bari na ay yoo xam ne dañ ko daan gis ci ay euh, sortem ay façon yi nga xam ne moom lay waxee ak ñi nga xamante ne mooy askanu Sénégal lu ci ëpp ñenn ñi dañuy jàpp ne sax koo xamante ne dafa dafa gaaw a mer koo xam ne dafay dafay dafay dafay gaaw a tàngal xam nga ñii doon doon nañ ko fi woowee ñàngal sàll mm-hmm. doon nañ ko fi woowee ñàngal sàll mm-hmm. moo loolu man damay jaakaar ni xam nga yàlla mooy bind nature. Mm-hmm. am na ñoo xam ne de nature dañoo am benn visage ferme. am ñoom seen très visage ferme lañ am am ñoo xam ne dañoo am benn visage yoo xam ne dafa ubbeeku visage ouvert lañ am boo leen gisee rek da ngay ils sont toujours gais jovial foo leen fekk rek da ngay day ils commerce facile pour nga aborder leen dafay yomb mhm. tellement que ni ñuy mel la ak ni ñuy comporté woo mooy waral loolu mais su fekkente ne yàlla mhm. dafay mel ni saa wax rek dafay mel ni da ngay menacer wala da ngay mhm. effectivement loolu lañ commencé gis ci discours yi nga xam ne président Macky Sall mi ngi koy yëkkati mu mën ci am nag ay jàngat yu bëri yoo xam ne mën nañ koo liiree parce que boo xoolee ba ni mu ci tontoo ak ni muy waxee rek da ngay xam ne kii li mu wax day day bëgg yëkkati kàddoom ne wax naa li dootuma ci delluwaat ginnaaw or wolof daf ne wax ju neex sarax la parfois mën nga nit duma ci dellu ginnaaw xam nga loolu moo waral parfois ñu naan ki dafa am benn langage diplo diplomate wala diplomatie yi moo bari ci moom mm-hmm. Mm-hmm. parce que xam nga xam nga lu tax loolu mu am solo mooy ki nga ne tey jii ki la ne Mahfouss may ma nga ne ko ah bàyyi naa ci xel wala dégg naa la Mahfouss nga ne mayuma la donc mais tas nga sama yaakaar mhm. mais soo ma ne bàyyi naa si xel wala dégg naa la ma naan ah subakat wala gënnaa soo Mahfouss mën na maa may mhm. mais soo ma ne mayuma la d' accord dinañ ne Mahfouss dafa direct mais kan nga war a wax mayuma la ak kan nga war a wax bàyyi naa si xel mhm. ku nekk ak ni ko war a tontoo pour man boo demee bay wax ak sa askan ak ñooy wax ñoom am na noo xam ne noonu nga war a waxee ñoom suñ delluwaatee ci mbirum vaccin yi ni ni mu ko waxee woon yi nekk bitim réew affaire bi soulevé fi benn tollé. Mm-hmm. mais après ñu comprendre ne peut-être erreur la mais ñu gisaat tey jii autoroute baa ngi fii ku ko mënta jël nga wàcc jël bi ci suuf am na ay tali yoo xam ne. Mm-hmm. boo ko jëlee di dem. Mm-hmm. donc mi ay façon waxin yoo xamante ne yow mi toog di ko déglu nga nga bëggoon jël autoroute parce que am na ñoo xam ne dañuy bëgg jël autoroute mais seen koppar. peut-être du ma ne matew ko mate na ko mais bu ñu ko jëlee dinañ am gaañaange wala bu ñu ko jëlee malgré lañ koy jëlee mhm. parce que dama yàkkamti ma bëgg a dem ma ne xaaral ma jël autoroute bi su ma ko jëlee dem mais du sama poste moo ma may mhm. fi Sénégal amul kenn ku fi am lu ne taj ba na gaañ xanaa ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi mhm. kon ba tax na loolu bu amee pour man booy wax ak sa askan am na noo war a waxee ak ñoom mais su fekkente ne da nga bëgg wax euh, a day day jàpp ne da nga koy menacé mhm. te fii koo fi menacé dafay braqué wu ak yow mhm. loolu nag confrontation kese li ñuy jëmale mhm. mooy waral nga ne ah moom kat dafay jaay dëgëral xaaral ma dëgëral ni moom parce que fii boo dëgëralee keneen ki dëgëral confrontation kese ngeen jëm mu nekk euh, benn constat xam ne si nii ñëpp euh, def nañ ko mais euh, tey discours boobu la war a mën a amee jëme ci askanam donc bu ñu xamee ni askan bi moom moo ko fal jël ay pouvoir nii la attitude bi la war a am. non attitude boobu kenn mënu ci d' accord Mahfouz attitude boobu kenn mënu ci d' accord parce que dafa am loo xam ne dafay dafa dafay jege mooy dafay jege li ñuy wax sax beew. wala wala wala wala yëg sa bopp wala fàttali la fal parce que su fekkente ne jamono ja nga daan wut ñi wax nit ñi neen wax benn comportement bi mhm. soo amee di wax nit ñi neen dafa am beneen lecture buñ ci am loolu tax ma yaakaar ne ñi nga xamante ne yor nañ ko yor ay communication war nañ def effort wax ak yenn yi pour kaddu gi muy jéem a xool naka lay def ba ba mhm. ba mu bañ a doon loo xam ne dafay direct trop parce que bu direct trop mën na gaañ parce mën na yaakaar ne peut-être kese lay waxal mais mi ngi wax ak syndicaliste mais Sénégal yëpp lay waxal mhm. ki toog këram képp ko am oto rek yow lay waxal mhm. képp ko am oto moo xam da far ci nguur gi opposition nga nekk société lay waxal mhm. kon comme ñëpp ngay waxal dañ naan kii wax ak war ngaa fexe ba sa kàddu ñëpp gis seen bopp mais booy waxee ñëpp bëgg ne man Mansour Mané laay destiné wax ji moom laay sànne ay pic mais euh, dama su ma ko sànnee pik naa sànni waale Mahfouz pik naa sànni waale keneen pik parce que ñëpp ñoo moom kaddu gi mhm. loolu moo tax ma yaakaar ne parfois il faut que muy xool kaddu gi euh, ci orientation ni mu koy waxee ak ñan ñoo moom kaddu gi xool naka lay def ba bu waxee mu bañ a gaañ kenn mhm, mhm. mais koo xamante ne yaa jiite réew mi foo waxee gàññit wala foo waxee mu am ñoom lañ ciy gis seen bopp ne président daf ñoo menacé yooyu je pense que mbir la ko war a éviter xaw am na ñu bëri tey ji am nay analyse yoo xam ne doon ko jéem a ku nekk indi ci xalaatam mais dama yaakaar ne daal ku koy conseillé fi ñu toll nii na wax mu teggi tànkam parce que fi ko teg du noonu mm-hmm. su fekkente ne da nga jiite askan di leen menacé wala su fekkee da jiite askan di leen di leen xëpp ah yaakaaruma waxtaan dina fa yomb. Mm, waxtaan du fa du fa yomb te nag euh, Moustapha euh, li ñuy kaas muy ci vaccin bi muy ci autoroute à bi lépp ay problème la yoo xam ne si nii euh, askan bi dañ koy jànkonteel peut-être autoroute à péage bi cher na mm. cher boo xam ne si nii lu toll ci 32 kilomètres muy Dakar Diamniadio nga fay mm-hmm. te boo demee ci yeneen réew yi fu ci mel ne Maroc da am benn autoroute boo xam ne si nii presque 300 kilomètres la ngay fay 1200 et Euh, ni ñu monté montage euh, financier bi ni ñu ko defee sax euh, état bu Sénégal moom ëpp la ci moo ëppale ak 49 pour cent presque 50 pour cent yeneen i FA soog a ñëw BAD soog a ñëw Banque mm. mondiale soog a ñëw donc état bu Sénégal tey waroon na mën a imposer ba nga xamante ni prix yi dina mën a yomb mm. mais ñoom loolu lañ bëggul dégg donc mu mel que ni intérêt askan bi soxalu leen mais tey intérêt ñi nga xamante ni comme ni ñu koy waxee intérêt mu entreprise étrangère yi loolu moo moo leen moo leen moo leen soxal muy Eiffage mais loolu moo leen soxal et puis dama dama koy def te kenn du ko fi waxee moo am dama koy def te kenn du ko fi waxee dama koy def parce que daf neex ma def ko fii lañ ko laaje woon je pense bien que Babacar Fall moo ko laajoon ne ko est-ce que xalaat na changer pour pour mu am élection yoo xam ne contestation yi lu bëri mu changer Aly Ngouille Ndiaye mu ne ko du ma ko def du ko def du ko def mm-hmm. noonu la ko waxee mm-hmm. <laughs> waaw kon xam nga kooku tey ji bu dellu si atee ne ku mu yi nga jaar ci suuf discours la boo xam ne yàgg na koo tenir mais damay boo boo delloo ginnaaw tuuti nga xool si ñi nga xamante ne ñoo ñuy jiite ñëpp dalee ko ci Senghor mënu ñoo xam lu bëri ci moom mm-hmm. mais Abdou Diouf Abdoulaye moo ci gën a bu dëgër moom moo ci gën a discours dëgër a ci ci mais ñëpp xam ne c'était un fin euh, diplomate mm-hmm. diplomate la woon ba dañ boo waxee naan du du wax du wax lépp lu mm-hmm. am na nu mu doon waxee ak nit ñi am na benn benn taxawaay boo xamante ne amoon na ko waaye dañu xam nañ c'est c'était un tribun c'est un c'est un orateur c'est un mm-hmm. koo xamante ne ku ku mën a wax la mais tamit doon na am ay écart comme mooy li amee erreur parce que ñun ñëpp dañ leen mais discours boo xam ne dafay ànd ak benn benn benn benn rigueur ànd ak benn ànd ak benn benn doole ànd benn diisaay boo xamante ne moom la ñuy gis jamono ji mm. man de ah sama expérience bu gàtt gisaguma jàngaguma ko bokk euh, ci njiitum réew ci ñu njiiteegum mm. waxuma nag ailleurs mais gisaguma fi koo xam ne mën nga ko comparer ak moom façon bi nga xam ne moom lay waxee ak mm. askanam mu doon loo xamante ne pour man euh, comme dañoo nekk ci démocratie d'accord ñu mun nga wax ne d'accord lii mais comme ku wax nga catégorique nekk ku intraitable kenn mun laa traité ci benn point yooyu ay mbir la yoo xam lu jar éviter la mm. parce que dafay tax ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko jiital bu ñu amatee lu ñuy tawat sax du dañuy dañuy jël seen bët ci moom mm-hmm. Mm-hmm. te nee nañ kilifa war na moytu sa njaboot am leen métti seen bët jël la tey ji boo dee ah man kat su ma ko waxee kat daf may wàññi wala su ma ko waxee mu xas am nañu ne dafa woo syndicat ba ñu ñëw mu mu mu mu bàcc bàccal leen mu bàyyi leen ñu ñibbi si ñoo xam ne mm-hmm. dañu indoon ay doléance parce que du woon moment boobu sax première mai la ñëw nañ am ay tawat indi mais déglu leen

ñëpp. en tout cas nekk na loo xam ne si nii euh, lu doy waar la euh, donc président Macky Sall war na mën a xoolaat donc communication wala ñi koy conseiller en communication ñu ñu ñu ñu bàyyi xel bu baax ci discours yi nga xam ne si nii mi ngi koy def di ko jëmale ci askan bi mu mel que ni euh, leen di ay saaga la sax parce que nit fal la ba pare jox la alal jox la pouvoir nga wëlbatikuwaat respecté woo ko je pense que sénégalais yi ak askan bi mérité woon na loolu de la part de Macky Sall ndax ba mu méttee métti woon na laaj taataan suñuy baat ñu jox ko en donc te moom dong nekk fi woon mm-hmm. donc bu ko sénégalais yi wóoloo fal ko donc je pense que waroon na mën a am beneen euh, taxawaay boo xam ne si daf koy am jëme ko ci jëme ko ci askan bi ba tax na euh, noonu la ñuy demee fa li nga xamante ni moom moo di Ndengler Ndengler nekk benn euh, village boo xam ne si ni soriwul dara ndakaar mm-hmm. moom nag ay coow yi fa amoon ci diggante ñu dëkk ci dëkk ba nekk ay baykat ak ki nga xamante ni c'est un homme d'affaires muy borom sédiment Euh, euh, nu mu nu mu tuddati Babacar Ngom Babacar Ngom donc moom euh, jàppante woon nañ fi yàggoon na nag ba nga xamante ni Macky Sall jëloon na ci dogal ñu daal di tegaat li nga xamante ni moom mooy armée yi ci suuf mais fan yi ñu ngi gisaat ne coow loolu mi rek am na ay am na ay am nañ ay xibaar yoo xamante ni ñuy wax ni amoon na jàppante bu fa amoon ci baykat yi ak ñi nga xamante ñoom yoroon sécurité bi foofu ci Ndengleer ci maanaam wàll bi nga xamante ni kii moom moo ko Babacar Ngom moom moo ko moom ba jot am na ñoo xam ne si ni jot nañ ci am ay gaañu gaañu donc mu mel que ni coow loo xam ne si ni kon ne fay na mais fayagul mais est euh, euh, dañu indiwul solution bi nga xam ne si moom moo ci war moo tax euh, coow li tey egg si waat wala wur ñu ko waat wax nga mooy mooy solution bi xam nga mhm. fii damay damay yàgg di wax benn mbir ñi ñu jiite ab problème day am ëllëg ko ñu saafara ko dañ koy déplacé mhm. mbirum dengaleer bi xamoon nañ ni tôt ou tard dafay dellu si seen kanam bi ñu fi nekkee fi daaw mu jax jaxe tànk jër ku nekk di wax mhm. ba ku nekk na na ci njiitu réew mi ku ne na ci dugal seen loxo que ñu profité ci occasion boobu battre le fer quand il est chaud lijjanti problème bi mu metti si metti si Babacar Ngom mu metti si moom si metti si ñeneen ñu metti si en tout ñu lijjanti ko ñu ab problème bi effacé ñu avancé defuñu ko dañ ne nañ leen bàyyi ñu bay bu déwénee d'ici déwén ñu jéem a benn consensus boo xam ne dinañ ko am su ko defee ñu mën a lijjanti mbir mi loo ci gis léegi fi ñu toon baa ngi ñëw mhm. lan moo waral coow li ab ñoo xamante dañoo commencé di dem fii yéen ko moom fii bokku si wala dañ fay teg benn conteneur boo xam ne bokk dafa dépassé seen territoire ñu leen joxoon mhm. coow loo xamante ne problème territoire na foofu noonu diggante Babacar ak ak ñële mhm. moo boo xamante ne il faut du nag mbir moo xamante ne dañuy toog jàmmarloo am na ñi coow na ñële coow nañ rek madame yi réseau madame gis ci chef de village waxtaan ak moom pour mu bàyyi li mu doon def wala mu gis Babacar Ngom pour mu teggi tànkam ñu négocier bàyyi nawet bi jàll ñëwaat da koy régler une bonne fois pour tout mu jeex ñu jàll ci leneen. Mm-hmm. ndengaleer doon beneen beneen mbir te dafa am loo xam comme problème suuf dafa sensible ab askan kenn mënu la xeex ak moom. diwaanu Ndingler gi yëpp ñoom dañoo jàpp ne dañoo nangu seen suuf dëgg na Babacar Ngom euh, wàllum yoon moo yor kayit yi mm-hmm. këyit gi moom moom moom moom suuf si. Mhm. léegi naka lañ hectare yu ñu toll naka lañ ko mën a joxee nit loolu lépp question la yàgg nañ ko fee posé. Mhm. ba ba wax nañ ko waxate ko waxatu ko fi mhm. mais comme dañ naan bu ndox tuuru an baax moo des. fi ñu toll nii man li ma yaakaar ne man mooy solution bi askan wi ñëpp xam nañ euh, paysan ak suufam ni mu mel. ñëpp xam nañ loolu comme kële jàpp na du bàyyi. man pour man état bi loxo Babacar Ngom la war a weñ. même su fekkente ne dañuy dañuy wàññi si tool bi wala ñu xool naka lañuy def li ñu ne dafa dugg biir jilax mm. xool naka la ñuy def ak moom ñu xool fu feneen fu ñu ko fi jox fii ci Sénégal wala ñuy def ñu def ko moo gën parce que jàmm moo gën lépp mm-hmm. euh, moom tamit mu da nangoo def concession am loo xam ne mën na koo bàyyi parce que li am démb kenn mënu koo rafetlu am na kuñ ci gaañ benn blessé la ñu wax mënoon naa gën a ñaaw mënoon na gën a grand mm-hmm. parce que ñu xam nañ xeex groupe ni muy mel comme mel na ni tey je pense que euh, dina am ñu si dox ay tànku jàmm pour jàmm parce que tey jii nee nañu waa waa Ndengler chef de village bi woote na réunion ñu xool nu ñuy waxtaane ak naka la ñuy taxaw ci mbir mi mhm. waaye ñoom dañoo jàpp ne seen suuf xalaatu ñu bàyyi ko mu dem comme ñoom jaral na leen loolu lépp mhm. pour man fi ñu toll nii ñoo war a woo Babacar Ngom waxtaan ak moom mhm. mu xool naka la ñuy def bu fekk defee installation ak lépp lu mu fa mën a def Ndengler suuf ñu xool naka la ñuy def ba ba buñ ko dédommage ñu dédommage mu dem feneen xool lu mu fa mën a liggéey loolu mu fa defoon ñu bu ñu xool ni ñuy def daal ba encadré ko mu def fa lam fay def mu def ko fa jàmm daal di man a am mm-hmm. sinon bu ko defulee tamit askan wi ñii ma gis nii du ñu bàyyi te fekk bàyyiwuñu ay doomu jàmbur dafa teg ñi garde ëllëg songante mën na amaat bakkan mën na si rot su boobaa lu ñuy wax xalaatoon nañ ko rek mm, xalaatoon nañ ko rek eh, ba tax na eh, lu dul jàmm moom jàmm ko gën eh, te yaakaar naa ni foofu jàmm lañ fa bëgg waaye tamit état bi ni muy joxe suuf war na ko war na ko xolaat ndax bu fekkee ci benn ci benn dafa dem ci benn ko benn nit te waxtaanul avant nga xamante ñoom ñoo dëkk ci dëkk ba te ñoom ñoo yoroon suuf sa dépp ci seen bay nga xëy suba jël suuf sa jox ko benn nit te waxtaanu ci ak ñoom ah, wala wala dédommagé wala dara tamit loolu dafa dafa metti ci ci xol Moustapha euh, ba tax na ñoom tamit loolu ñoom duñ ko nangu te que problème neng leen bi moom ko jaay indi say kayit loolu dafa yomb dafa dafa yomb moo tax duñ ko gaaw a nangu parce que ñoom boo gisee defe naa si hectare la wax naan moo gën a nengale dugg jëlax hmm. ñeen loolu sax neen du waa nengaleen mais waa jëlax lañ mais ñëpp xam ne ñaari dëkk loo xam dañoo dendandoo hmm. mais daal lépp lu ci mënta am rek man dama yaakaar ne daal euh, comme mbirum suuf la tey wax ji mi ngi gën di metti mm-hmm. état bi moom la ñu war a waxal parce que ñële nanguwuñu pareeguñu pour bàyyi comme pareeguñu pour bàyyi mm-hmm. ñoom ñu ngi jàpp ñu jàpp rek nañ dem waxtaan ak kële dëgg la moom ay kayitam mooy rub mais nengaleer doom du fi suuf mm-hmm. comme ni ma ko waxee léegi nañ fexe na lañu defee ba trouver benn terrain d'entente ñële yaakaaruma ñu ne dootuñu bàyyiti fenn dootuñu bàyyi dinañ bàyyi feneen bàyyi ndengeler parce que mënuñoo xëy takk seen i charrette mhm. dafa dem di bàyyi ji te bàyyi seen teer yu nga xam ne dañoo jàpp ne seen maam ci li nga xamante moom mooy sport ak football bi eh, donc ak eh, li nga xamante ni moom mooy qualification coupe d'Afrique coupe du monde autant pour moi 2022 eh, donc euh, Sénégal daanaka comme ni ma ko waxee rek stade moom lu fi lu fi lu fi jafe la jamono rafle rafle na fi trop ba tax na amuñu fi mu ne nii jamono ji euh, stade boo xam si ni homologué nañ ko par la confédération africaine de football muy CAF bi nga xam ne moom moo yore football euh, Afrique euh, homologué wul benn stade fii ci Sénégal boo xam ne si ni mën nañ ci football kon jàpp na ni Sénégal tey bu amee bu waree recevoir day day dem beneen beneen réew pour mën a football ji foofu donc loolu du suñu avantage te yaakaar naa ni footballu Sénégal euh, dépassé na loolu am na ñaar fukk nag ak benn ci ay réew Afrique yoo xam ne si ni tey amuñu benn stade bu ñu homologué donc seen stade yooyu mënuñ ci football benn match boo xam ne si match officiel la euh, mu mel que ni nag euh, Sénégal fi mu toll ci football fi mu toll ci ci football ci Afrique fi mu toll ci football ci ci ci àdduna bi ba pare mënuñu am benn stade boo xam ne si ni stade bu ñu homologué la pour mën ci football ne serait-ce Euh, qualification qualification coupe du monde euh, donc 2022 loolu euh, gàcce la ci suñu ci suñu ci mm-hmm. suñu autorité yi rawatina ñi nga xamante ne ñoom la ñuy dénk wàll boobu muy wàllum sport Moustapha gàcce la wax nga ko gàcce la ci ci ci ñi dénk wàllum sport gàcce la suñu autorité yi dama la jox benn misaal rek tey ji boo amee sa doom miy jàng école dem di jël pay fu mu toll di jël pay ay at te xale bii dem doo ko jox sac doo ko jox bic doo ko jox kaye yow fu mu révisé si kër gi sax bu ñëw si kër gi di révisé sax doo ko taala lamp mm. bu xëyee yenn saa yi moom mooy taaba taaba lijjanti mm. mm. kenn ku amul kenn ku fi taxaw fédéraux kenn ku war a taxaw fi naan ñun ñoo tax équipe ba mu def mm-hmm. ma naan booy sax jour yi ah. seen talent ñoom ñoo am seen mën football ñoom ñooy def seen ay effort def résultat yi ñuy def mm-hmm. mais man damay wax sax benn benn benn instant à ah, quelque chose malheur est bon li def nii dañ ci sant yàlla baax lajoor gi ñu amoon lajoor lan la li laaju wax ku nekk di siisu la mais champ de la boo fa passé benn passe pour mu yegg bal bi dina def ay téeméer rebond pour yegg si benn football baax mënuñu nekk ci ay club yu mag nga ñëw fi dugal leen foo xamante ne passe bu baax sax duñ ko mën a am ci biir terrain bi mhm. mais heureusement bu ñu ajee nag léegi terrain bu ñu demee Maroc Maroc am nañ terrain bu baax mhm. Maroc am nañ terrain bu baax boo demee Côte d'Ivoire di nga fekk terrain bu baax mhm. au moins ñu fubal foofu euh, su boobaa dinañ am chance produire jeu bu baax mais nag actuellement li tax affaire man pour man nekk na catastrophe parce que Séné li gàccele ci Sénégal mais comme amuñu terrain baax bañ dem ci beneen club pour man bañ dem ci beneen dëkk danger bi du metti ni mu doon mettee parce que léegi bu ni match huis clos presque équipe bi recevoir ak ki fekk si daanaka ñoo gis nañ loolu ci championnat yi parce que am na jàngat sax gis nañ ne comme ni mu daan méttee ci boo fekki jaax bu ñu la fekk see léegi melatul noonu tension amatul benn pression boobu noonu amatul benn public boo xamante ne boo dëggee ba ñëpp yuuxu mhm. wala kii dem ci corner bi yooyu yëpp daanaka amatul mhm. match yi léegi comme entraînement mhm. amatul benn ni mu daan mel loolu moo tax tey buñ ko joué je pense que du amati benn benn benn benn impact boo xamante ne dina dina peser négativement ci liñ doon yaakaar ci mais lépp lu ci mën mënta am daal gàcce gi moo ci ëpp mhm. ndax dëkku benn Sénégal lu toll ci ñeenti at xaw ma juróomi at mu nekk première nation ci Afrique. fu ñu tuddee football Sénégal nekk ci kaw. nekk ci toit bi kenn mënu ko foo jëlee. bu ma coupe d'Afrique bu mujj bii rek. ñooy nga euh, te boo xoolee dëkku Maghreb yi nga xamante ne ñoom lañ ñoom lañ ñoom lañ moom lañ demoon final na six boo boo boo liiree tableau bi. si si stade boo liiree tableau yi fa lañ def euh, am ñii cinq mhm. ñoo xam ne suba suba suba boo leen noonu kaa d'Afrique bi ñu leen yëg si pare nañ mhm. fii Sénégal Sénégal ñu ne dëkk boo xam ne dañoo bëgg gagner Coupe d'Afrique benn terrain boo xam ne mën ngeen fa recevoir. am amuñu benn stade amuñu ko. Latjoor bi nit ñi def waru leen a bett. Mhm. Latjoor boo xam ne comme terrain petit camp. yow boo fa doon seetaan Sénégal da ngay rus. Mhm. synthétique bi terrain comme petit camp boo defee longue passe balaa nga xam passe bi génn na tey bi. Mhm. mais loolu tamit parfois il faut ñu respecter Sénégalais. Macky Sall bi mu fi nekkee léegi def na fi 9 ans. indi na fi euh, centre Abdou juuf bi. Mm, mm, mm, indi na fi arène nationale. indi na fi arena terrain de football bi bi ñu jógee fële la koy doog a dig ba léegi ñu ngi koy tabax man pour man ba mu ñëwee waroon na bokk ci chantier yi njëkk. parce que am na yoo xamante ne waroo koy yéex def boo bëggee mbir réussite dafa am coût. te coût boobu il faut nga nangu koo joxe. mais malheureusement euh, parfois daal doo doo doo comprendre comme ni ko Tigan Diao doon waxee rek. Mhm. tout le monde veut entrer au paradis mais personne ne veut payer prix. Mhm. loolu mooy suñu problème ñun africain dañuy bëgg luxe bëgg lu baax mais duñ nangu def sacrifice. Mhm. mi ngi mi ngi noonu du nangoo def sacrifice ba tax na fan yële maa ngi ñu ngi waxtaan waxtaan sax may la football euh, Sénégal fi ñu ko teg fii ci réew mi du place ndax mm-hmm. euh, boo demee ci fédération sénégalaise de football fi mu nekk ak bâtiment bu mu nekk rek siège bi rek euh, vraiment honoré wul football football football Sénégal donc waroon nañ ko mën a gën a wecc tabaxal ko loo xam ne si nii tey képp ku ñëw di nga respecté le football sénégalais mais amu amu ñu stade amu ñu te du football kese ah sport yëpp la sport yëpp la pratiquement foo foo métti folaal day métti parce que bi daal moo ci mucc parce que ñoom tabax tabax tabaxal na leen te tabax bi avant avant ñuy am boobu xaw nañoo dee daanaka euh, euh, Marius Ndiaye bi moo fi nekkoon te Marius Ndiaye gis nga ni dafa dafa yàgg donc Sénégal Sénégal daanaka amoon Léopold Sédar Senghor Léopold hmm. Sédar Senghor euh, dañ koy a ay réflexion pont fi wax dañ koy réflexionné dañ koy réflexionné pont bi mu màggandool mabal nañ ko tuddee ko pont de l'émergence dañ ko war a mabal yaa ngi dégg defaraat ko. dafa stade eh, Demba Diop dañ ko war a daaneel. defaraat stade fii région yi ku nekk war nga am benn stade boo xam ne si nii di nga di a football même bu fekkante ne match boo xam ne si nii match hmm. euh, da a soqali mais boo seetaanee Léopold boo xoolee si Léopold Sédar Senghor seen stade bi ni mel rek nga xool ay reetaan jàpp wallaay stade public bi ak stade ni mu sore léegi nga hmm. xool nga xool terrain terrain yu bees yi hmm. public bi dañuy taxaw ni team joueur yi mu def nii nga xamante ne ambiance day dund mais fee eh, da ngay toog mais c'est extraordinaire teere ne amatul yàgg ah dafa lu mel noonu temps bi <laughs> daf ñu fi ba ba pare nag naan moom lañ am temps daf ñu fi ba xam nga yooyu lu mel noonu man ñoon ay dañ koy réfectionné déet buñ ko réfectionné ñi ngi defar fële benn nañ ko màbbal mu daanu ñu te indi indi fa maquette bu bees def ko benn stade boobu bees bu moderne hmm. boo xamante ne bu ñu amee boobu ñi defar benn jam ñaajo xanaa bu boolee ñaar bu noppee lajoor bi ñu fexe bu mu bu mu bu jeex hmm. parce que fi ñu benn coupe d'Afrique bu jeexee dina bëri ñoo ne ñu seen dernière coupe d'Afrique dañuy dem hmm. mais génération bu jeexee te gañu ñu c'est une grosse perte dañuy perte lu bëri te ñooñu tey ji fekkante ne suñu stade baax na fa la ñuy jaaraat amoon nañ fa la ñuy mujjee mm. te tey ji fekkante ne suñu suñu te dara wóoruñu ñii ñëw dinañ mel ni ñi mm. bu fekkoon tey am nañ stade tey ji amaana bu ñu organisé léegi coupe d' afrique bii nii bis topp nañ ko organisé waat nga am équipe boo xam ne taxaw na da nga ñëw lu mu dee di nga dem final jël ko ñëpp xam nañ boo organisé dëkk ni muy chance ngay am uh-huh. mais malheureusement euh, mi ngi noonu daal Cheikh Mahfouz bu ñaxee daal ñu indi ñu seen euh, synthétique bi la ñuy bëgg a rey synthétique te moom daanaka euh, demul fenn ndax bu fekkente ni FIFA reconnaît tojul fenn FIFA da nga ci mën a jouer yenn fa puis parce que baaxul baaxul day glissé donc baaxul parce que dafay tàng. Mhm. caoutchouc la. caoutchouc la baaxul donc loolu loolu moom moo tax donc en tout war nañ xoolaat bu baax a baax euh, suñu ay politique jëm ci wàllum sport euh, suqali suñu championnat bii nga xamante ni moom la ñu am. Euh, comme nawetaan yi moom daanaka mooy loolu dañuy suqali sant champion championnat yi gën ko jox doole. Mm. nit ñi di dem ci stade yi di seetaan championnat yi affaire yi parce que Europe loolu moo sox loolu moo doxal seen seen seen seen seen football dañuy dem dañuy defar ay yu baax organiser seen championnat yi jox ko doole jox ko benn gëdd ba nga xam si ni tey bu dimanche jotee wala bu samedi jotee ñëpp stade la ñuy dem di dagg ticket. Mm-hmm. affaire yi di dund am xaalis club yi di am xaalis. ngay mën di jaay ay publicité donc loolu moom mooy doxal li nga xamante ni moom mooy sport mhm. mais boo ñëwee rek tey def sa benn terrain jël gars yi sànni équipe bay football ñetti groupe benn groupe supporter nga gis benn ni tey lii di euh, sport Sénégal tey dinañ ko mën a yóbbu fu sore sore moo xam ci domaine yëpp nag moo xam ci domaine football bi la moo xam euh, basket la moo xam karaté la moo xam nu mu ci mën ci doon en tout cas ñun ñoo ko mën a valoriser mais moom dañuy rey suñu bopp rek mais duñ fi indi ko looy tëjee. waaw fi may tëjee rek mooy li Ablaye Diaw doon wax ne ni football ci réew. Mhm. su club ya baaxee équipe nationale ba dëgër. Mhm. <laughs> <laughs> wax na lépp su équipe nationale mais yàgg na mais malheureusement déglu dégluwuñu ko mhm. bu ñu liggéeyee euh, petite catégorie bi mu jëm ci kaw jëm ci kaw équipe yooyu yëpp su dëgëree rek day logique lay doon quoi day yegg équipe nationale bu normal ngay am mais malheureusement dégluwuñu ko dégluwuñu ko dommage en tout cas ñu ngi lay jaajëfal. ma lay jaajëfal si gars yi namoon nañ la nag parce que. Ah, fan yëpp yow lañ gënoon nam temps yi moom <laughs> temps yi dañoo nekkoon si yeneen affaire quoi fan yi ñu ngi foon xam nga ak nekkoon si euh, liggéey bi bëri. ak travaux yi fi amoon ak plateau yi ñu doon defaraat ak yu mel noonu xam nga daf ci dafay am solo. temps yi moom dafa dañu xatoon quoi mais sant yàlla mais ñëwaat nañ ñëwaat nañ ñëwaat ah. nañ te dinañ gën a indi sujet yoo xam ne si ni sujet yu yu yu yu yu yoo xam ne si ni yu jara waxtaane la fii ci mhm, terrain mhm, parce que mhm, am na ñu doon am ñu envoyé ay sujet di ñu wax nañu lii ak lii ngeen ci waxoon tey dina am solo bu baax a baax ñi ngi noté nag yëpp yëpp dinañ ci dinañ ci waxtaan benn par benn euh, comme ni ñu koy defee chaque jour Moustapha jaajëf jaajëf Libas moom mu nekkoon ci réalisation bi ak technique bi wante yéen tamit kenn demul ngeen des yéen ñi nga xam ne si yéen fi nekk ci biir réew mi ak bitim réew euh, di safoo suñu ay programme di leen wax rek euh, ngeen wéy di abonné ci suñu seen YouTube ba Sunugal 24 activer la cloche notification di am les vidéos en temps réel di leen jox dig daje ba suba incha ngeen jëf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 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax